mbaa yéen a nga cëw libération ne marché gré à gré ba toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaari milliards suñu koppar la ñu jaarale par la force doole mbaam libération ne li kay moo riir ci réew mi te marché bi nag moo dox diggante kantoom Géza ak marché bi nga xam ne moo nar a tabax hôpital Le Dantec dikkati libération yéeni kaay dama doomu Mariama Sarr dawal sans bi ba fël nit yéeni bi ne ma gannaaw coow li bam ca baree dañu koo jëli woon waaye tam daal dinañu koy libéré waat woo ko ci convocation gannaaw pression yi yoo xam ni daal dinay tegu bi ne ma doomu Mariama Sarr bi yorul permis daal dina yàq wotoog présidence ba mu doon dawal rax ci dolli na fel nit fel gu doy waar yéene kaay bi ne laa ngi laa ngi muy tabaxum nag l'hôpital la Dantec marché yaa ma neex la boo xam ne juróom-ñeen fukki milliards ak ñaar la ñu daal di forcé nag daal di koy jébbale direction centrale des marchés publics daal dinay bañ boobu le marché waaye boo moytul na tojante mag dina ca am ba marché boobee tàbbi ci loxol ñii Sénégal, bonjour. ciao tcha fengi En attendant, terminons avec Libération. Le journal parle de groupement Quantum Geza et le marché. Le marché pour la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, histoire de titrer un gré à gré. Un gré à gré, retenez votre souffle s'il vous plaît, de 92 milliards. 92 milliards, Robert Robert, passé au forceps. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc de Tchei Allah. du diamanti, Bon, vive le Sénégal.